à un régime c'était la justice des vainqueurs hmm. euh, da wax léegi bi ngay daaneel nga ne yi ci milliards yi la yi dafa nekkoon ci fond de commerce wala discours de campagne bu loo nit ñi muy la bon gouvernance ah. ci moom lañu ñu dégg gouvernance sobre et vertueuse hmm. je crois que ci nguuram ba fii ñu egg contraire bi la gis on pas vu <laughs> gouvernance sobre bu ñu doon wax mm-hmm. wala vertueuse ou bien sinon ça a été sombre parfois et vertigineuse alors le procureur Alioune Ndao maître vous l'avez invité à deux reprises je crois que euh, il veut se donner bonne conscience ah. je crois que depuis qu'il a eu ses ambitions politiques on ne peut pas lui interdire d'avoir ses ambitions politiques c'est un Sénégalais qui a fait ses études au Sénégal n'est-ce pas mais jàmbaar le procureur Alioune Ndao moom moo paaka bi ñu doon tëree di ko rendee ay nit sur le plan politique. et pourtant il a refuté là mënu par rapport ak li ko doon président doon doon sàkku. mu di ko bañ ba mu jaral ko lii. Ah, waaw sëñ ah. moom peut-être indirectement xëy na ci. directement ak indirect cere ji moom bu si dul ñeex nekk ci nekkoon na ci laalo leer na Alioune ndaw il veut se donner bonne conscience dëkk bi avant man dégguma Alioune Ndao déggoo ko. le procureur Alif Ndao est devenu tristement célèbre par rapport ak la CREI mm-hmm. avant du kenn du ko woo da ko déggoon ci ay média ñaata yoon la def conférence de presse fii mm-hmm. demuñu couvrir ko ay waxam sax du mu ko wax parce que moom exécutant la woon ci benn système boo xam ni moom lañ mettre en place maa ko dégg mu ne le compte de Singapour Alioune Ndao mu ko wax waaw mu ne Antoine Diome ñëw ne ko Antoine Diome ñëw ne ko. Mhm. man yow yaay sama patron ak président. compte Singapour bi dañ ko ko soufflé ay compte jinne sax créé nañ ko fi ay dóor quoi ay nit yoo xam ne dañuy toog jël xaalis sénégalais jël ci avion mhm. te ay hôtel def ay commission rogatoire ça coûte cher loo yi ñu jël dispositif yi ñu fa teg moyens yi ñu fa teg ça coûte cher ana avocat yi demoon ne dañu layal état bi seeni honoraire ñaata avocat hmm. mais loolu yëpp yëpp yëpp pour rien quoi c'est-à-dire bi ñu koy teg dafa am résultat bu ne la moom moo leen tax a jóg est-ce que les résultats sont là les moyens ont été déployés vous avez dit cinq cent million de budget annuel hmm. cinq cent million c'est pas petit c'est un hmm. demi milliard xaaju milliard. loolu ñu doon dugal ci CREI yi bu ñu ko dugaloon ci kaso yi def ci ay conditions mu nekk ay conditions humaines loolu ñu dugal ci CREI yi bu ñu ko dugaloon ci condition de vie yenn nit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu kaaraange mu dem mais dañu amoon benn volonté une volonté politique c'était matérialisé xam nga man man man principe laay wax. Hmm. Ablaye ñun bi ñuy jàngal droit jàpp naa ne dañ nañu la preuve incombe au demandeur. Hmm. mais ici c'est le renversement de la preuve. Ah. bi ñu ñëwee Abdou Diouf contexte bi mu ñëwee jot na nguur ci jot boo xam ni am na yeneen koy yu ci mbalkame mhm. il fallait mu am lu mu rëqee seen digg wala lu mu dindee seen ambition après quand on réforme judiciaire ci li nga xam ni moom la ñu am dans notre pyramide gisuloo ci benn <laughs> institution bu tudd CREI comme par enchantement on nous sort la CREI Mimi Touré elle s'est faite un yaa ma dégg ba Kouthia di ko wéyal mii ngi ñëw mimi mimi mimi ñu naan la dame de fer rek xaw ma la dame d'acier nga est-ce que wax ji hmm. ñu zélé toog fii des conférences de presse pour nous dire que c'est six mille milliards cinq mille milliards nangam sangam milliards en fin de compte on s'est retrouvé avec kii benn nit lañ jàpp tëj ko si kaso bi ñetti at hmm. xañ ko ay àqam xañ ko ay yelleefam moi je dis Karim def na <laughs> wala deful hmm. mais am nañ Cour am na IGE kuréelu saytukaay yooyu ngay wax bi ñuy saytu dañuy dem ñu saytu si ministère yow comment tu peux comprendre rond-point Grand Théâtre stade bi nu Dembay Dupont nu ko gaa yi tuddee Karim Wade la ñu tuddee Ablaye Balde comment euh, Ablaye Balde nekk secrétaire général u Maayam yor exécutif u aussi non je parle au sénégalais oh. c'est pour montrer Eh, lié la complicité. Mm-hmm. entre Karim entre Karim Wade et Abdoulaye Balde. oui rappelle que Abdoulaye Balde. Mm-hmm. Euh, commissaire de police jàng na cetera. après était son plus proche collaborateur. voilà mais comment ici kii président du conseil la kii secrétaire général la. kii mm. mooy exécuté sur Ablaye Baldé on n'en parle pas même Alioune Ndao te di bëggoon na ko poursuivre ñu ne ko doo fu defee. am na ñeneen ñu doon bëgg parce qu'il avait les mains liées. parce que moom c'était un bouton juridique qu'on active. donc ah. quand je dis que le système judiciaire du Sénégal lii lii laay wax chaque jour su ma ko waxee ñu ne ma non institution. mais attends kon suñu système judiciaire Mouhamed suba mën nga nekk président nga wut say kuréel nga teg ko nga teg fa ay nit di leen defloo di leen tëjloo di leen tijjiloo. ces mêmes nit ils ont accepté de faire ce sale boulot après défenestrer ils reviennent ici pour se donner une bonne conscience mmh. maintenant sur ça pourquoi nguuru Macky bàyyi ba bay dem bay baaja dem ñu ne nañ dindi kere lu tax suñu pétrole bi kon duñ fa wootee waa kere ñu xool la moo tax ñu yóbbu ko procédure d'urgence boobu noonu. oui mais mais non mënuñu ñëw ñoom ah. ñoo ko dekkil. Ah, ah. ñoo ko rey. en tout cas ñu bëri posé wu nañu. ñoo ko dekkil ñoo ko rey après. revient pour parler mais teg nañu en place. Euh, pôle judiciaire grand ay parquet financier boobu teg sax. dafay am sax foo xam ni pôle pôle pôle dafay am xam ni sax day jéggi. si compétence am dugg si compétence yu yeneen kuréel yoo xam ne ñoom ñoo am. du dëgg. Mm, mm. tu peux avoir les meilleurs textes tu peux avoir les kuréel. tu as l'OFNAC l'IGE euh, ah, bu la am nga ko. mais su fekkee ni. allez saytu baax na trop. Mhm. xayma baax na mais boo saytoo impunité à quoi ça sert maintenant le vrai débat aujourd'hui Karim mën na toog fee di rey ah. très bien parce que ñi nga xam ñoo ko doon tiiñal di ko sosal. di def point toogoon di dox ñoom ñooy toogaat di wax ne ñoom la ñu nekkoon du dëgg. Hmm. kon quand je parle de solstice. justice am na waaye justice am na c'est-à-dire mën nañ jël fii ci Sénégal sëlam la ba nga ñuul tilimal la ba nga takk mhm. jël la dugal la ci kaso waaye mën nañ tamit génnee la rag la ba nga set weexal la ba nga wextaal maintenant le le le vrai débat mooy sur la question de la transparence et de la mhm. bonne gouvernance d'accord euh, demain c'est pas encore demain que la ñuy jóge ci ci ci ci ci loolu et quand de de milliards lii et cetera dégg rek lañ ci am. Ah waaw alal joo xam ni euh, judd bi day gaaw keroog laa leen fii nan laa mën a admettre wala ma comprendre un fonctionnaire nekk milliardaire loolu Sénégal gi rek la am jërëjëf. alors Ablaye euh, ñu ci bëri dañuy jaawale euh, peut-être bon peut-être incompréhension la wala bëgg nañ ci am lu leeral par à travers les sorties du ancien procureur Aliou Ndao est-ce que mënuñu jàpp ne dafay seetal Karim wala da doon rétablir des faits waaye ay la yéwén ci biir lam doon toppee Karim am na ci yu nga xam ne Karim def na ko parce que am na yu nga xam te ni euh, mënuñu euh, natable ñaar ñu ci bëri nañu jàpp ne à travers ces sorties dafa setal Karim ka deful dara euh, kërëb kërëb nangam nangam. Ah, yow naka nga jàngatee ces sorties. ba muy nekk procureur. ba ba muy génn si poste boobee ba jamono ci bi muy wax. defe naa ni lu bari si li nga xam ne njortoon na moom si liggéey bi ñu ko sasoon. que ni moom euh, am na loo xam ne daal jàpp na ni Karim def na ko jàpp na ni Bibo Bourgi na ko. jàpp na ni kii nga xam ne moo di Pouy xaw ma naka te Pouy. Euh, euh, Pape Mamadou Pouy. Pape def na ko. donc am na loo xam ne moom bi muy jox li nga xam ne mooy Karim Wade maanaam si ba mu koy déglu. premier bi ba mu koy dégluwaat bala mu koy topp moom xëy na moom jamono jooju dafa amoon conviction que ni effectivement am na loo xam ne war nañ ko mën a gis donte ne lañ doon wax lu bari ci Karim Wade itam amut. Hmm. Euh, te moom wax na ko reconnaître na ko mais jàpp naa ni taxawul toogul sortie yi muy def nii toogul pour setal set weccal. set hmm. setal wecc. Hmm. ki nga xam moo di Karim waat xëy na jàpp na ni moom bu mu fa quitté am na lu bari loo xam ne andi nañ ko si loo xam ne ni effectivement euh, xëy na moom ba mu fay nekk moom da ko doon bañ xëy na laa wax xëy na mm-hmm. ba nga xam ne bu génnee ba jamono yi nga xam ne sañ naa wax ba mu nekkatul procureur la sa topp lépp xëy na lu si bari bu ñu ko doon andi itam c'était véritablement à des fins à des fins purement politiques ouais. parce que le très très très médiatisé mm-hmm. euh, jamono jooju Euh, li nga xam ne moo di département justice lu bari si wàllu par def na ko dans le sens de la communication hmm. dans le sens communication loo xam ne effectivement day fexe toujours moom nu ñuy fexe ni ñoom ñoo nekk si dëgg bi lañuy ñuy toppee Karim Wade en fait c'était lu am la c'était des vérités purement et simplement le compte de Singapour yëngal na dëkk bi. Uh-huh. Uh, Alburi Ndaw boobu nekkoon comptable xaw ma comptable boole soufflé xaw ma ak yu demee noonu. ba ñuy ba ñuy jël ay uh, AHS SHS ak yooyu yëpp di ko nangu. yëpp am na lu bari loo xam ne waxoon nañu ko si loo nga xam ne moo moo ko moom. te demoon nañu ba nga xam ne véhiculé woon nañu ay information yoo xam ne Mohamed dañu doon jàpp ni. Uh-huh. Karim ba muy ba mu fii nekk ba ba ba nguuru uh, papaam di daanu. société bu ñu fi créé rek Karim am na si 10 pour cent. xam nga loolu tamit entendement pour nga dégg ko c'est difficile après recul mais jamono jooju soobu woon nañu si loo xam ne amaana da nga doon dañoo tam nit ñi tam nit ba nga foog ni lépp lu ñu wax si nguur googu rek lépp am alors que lépp amut woon. mooy comme aujourd'hui plan de dévolution monarchique du pouvoir boobu mais ñëpp xam nañu ni ce n'était pas possible. c'était pas possible parce que élection lañu élection lañu daan dem. car bi xëy na am na loo xam ne mun nañ ko si mun nañ ko si duut baaraam mais damay jàpp ni yàqale moom mënuloon am euh, si li nga xam ne moo di niveau de démocratie fu mu toll. Hmm. ak li Sénégalais taxaw si wàllu bañ moo tax euh, damay jàpp ni procureur yu Ndao hmm. génnul pour ne waaye Karim moom la ñu waxoon ci moom lañ ko toppee.